yal na yàlla fay tamit kulla waahidin kenn ku nekk min huma ci ñoom muy Cheikh baaba ak Serigne Touba yeleen yàlla boole fay an saahibihi tayit yal na fay seeni àndaale xayran aw yiw wa baraka te mu dul leen barke fi aqibi hima mu def barke tamit ci na nga xam ne ñëw leen fi wóotu ñoom ñaari sangu yu tedd yooyu muy seriñ Touba ak Cheikh baaba ki nga xam ne mooy nettali wax ji nag mooy Mamadou Lamine Diop Dagana yal na ko yàlla fay mu ne wabqaa des na dawla wabqaa te yal na yàlla desal dawlatal kulli nguur ak ku ne mooy barkeeb ku ci ñaar ñooñu yal yàlla desal ci seen ak njaboot illal jannati lati ba ca àjjana ma nga xam ne wuxi dal mu tàqoona yàlla dig na ko way ragal yàlla ye yal ci yàlla boole amin yal nga nangu yaa rabal alamina yow borom fi wa mi man bokk ci ña nga xam ne zaara sëriñ Tuubaa siyaare na leen minal asiyaaxil bayaadiini ci sëriñi naari gànnaar ya al ustaasu ustaas ba ñuy wooye ustaas baaba ibni hamdi kay doomi hamdi ahni eh ustaas baaba ma may wax nag zaniya mooy bu ñaareel bi waxuma mu jëkk ma de waxuma mu yàgg ma mu mujj mi laay wax mu ne attaawoo ustaas baaba moomu nag sëriñ Tuubaa dikkal na ko wasalla sëriñ Tuubaa yendu maawoo ànd ak moom sëriñ Tuubaa yendook moom ñëw këram yendu fa wa baata sëriñ Tuubaa fanaan ak moom xiila wax nañu nag seen fanaan nga sax fii xubbatin ci benn néeg lañ bokk fanaan ñoom ñaari sëriñ yooyu waahidin bu di benn axabara ni xabaar na ma man moom Mamadou Lamine Diop Dagana xalil yi samab xarit al mulaqabu boo xam ne dañ koy dàkkentale bi kaadi ci kaadi kaadi la tudd sama xarit booba sayxu abdul xaadiri ibnu al amini al kumlayliyu loolu mooy dëgg turam nag abdul xaadir ibnul amini al kumlayliyu mu ne al kumlay moom kumlayliyu moom ñu gën a miin ci kaat xabaar na ma wakaana nekkoon na isaaka boobee nag bi muy xam xabaar bi moom ma nga nekkoon ka muridan mi ngi nekk mu nga nekkoon muridan ab taalibe lil ustaasi baaba ci kër ustaas baaba fa la nekkoon ab taalibe fa la gise loolu ba xabaar ba nettali ko mu ne ma annal ustaasa naka ustaas baaba axbarahoo nettali na ko ne bi annahoo naka moom makkana yombalal na asayxa sëriñ tuuba mi nga xam ne zaira dafa ñëwoon siyaare si ko mina sëri ci ay mbóot waaye nag walam yu bayin lii leeralu ma maa huwa ana lan mooy mbóot ya xooltuma wax ne ci samam xel wala aloo xëy na tarixata saasaliya ba la la ko jox moom la naan yombalal na ko loolu nag dama ko wax samam xel rek ndax li an na sayxa naka sëriñ Tuubaa katta ba bind la naa ñeel nu ne anoo naka moom axasahoo jël na werdu saasaliya awlan cëg jëkk bi wasitatin ci ab digale xabla an yalxaa lu jiitu muy dajeeg wasiitata digale bii nga xam ne al usma mooy digale bu màgg ba di rasulullah sëñ Tuba nee na nettali na ko ne mas naa jël werdi ci beneen nit boo xam ne moom ab diggale woon la waaye jëloon na ko ca moom lu jiitu muy taseeg rasulullahi ba mu taseeg rasulullahi nag wérde wu jëloon muy tiijaan muy xaadir rasulullahi daha jëlaat wérde wa joxal ko ko boppam ba ba nak nag jox ko wérdu murit ne ko wérdu murit bi nag yow dong yaa moom yeneen wérdu yee tamit yaa ko moom ku la neex jox ko waaye wérdu yooya am na ñeneen ñoo xam ne bokk nañ ca mën nañ caa joxe waaye wérdu murit wii nag yow yow dong yaa ko moom koo ko joxut sañu koo am te wérdu tiijaan ak wérdu xaadir ku la neex jox ko moo tax mag euh, maam Mor Jaare bi mu ñëwee jébbalu ci sëñ Touba sëñ Touba da ko ne sa wérdu xaadir woowu wéyal ko jox naa la ci ndigal mu ne lu jiitu muy taseeg rasulillah am na ku mu jële woon ca wérdu wa kon jot naa ne ustaas baaba moomul mu ne nag lu jiitu muy taseeg rasulallah yi yonente yàlla ba sallallahu alayhi wa sallama waaye nag walam yu bayin lanaa leera lu nu woon a man axasa o ana ca kan la ko jële nun danoo njort loola rek wa sababu ixbaari kaat sababa xibaar ba nga xam ne kaat xibaar na ko lii ñeel ma bi aza ci lii anni naka man saaltuhoo laajoon naa ko ba da an axasa ginnaaw ba ma jëlee min sayxinaa ci sëriñ bi saasaliya tan wirdu saasaliya saaniya tan jëlëb ñaareel bi ma ne ko al ndax taxala mu xam nga mi man ana ca kan axasa sayxu ca bi jële woon wirdu saazeliya ca ca moom la sëriñ bi jële woon wirdu saazeliya saazeliya tan fa xaala laa mu ne ma déedéet xaw ma ko kin waaye axbari nii xabaar na ma al ustaasu baaba moom ustaas baaba ilax ba ca mu jeg waxtaan wa mu ne boo boolee wax yooyu yépp wax day jamtalu indowoo fa moom li anna ustaasa baaba naka ustaas baaba kaana nekkoon na saaziliyan di ab saaziliya taw minu ca moom axastu la jële awalan ca jiitu wirdu wa fax tamala day daal di jën day daal di daytalu indi fa nun bi sababi saalika ci sababak loolu nag maa la xam ne uhtim uh i eh, tumi la jaamtalu na indoo fa moom ikaayatun mu dem nettali ma ne ci lool nag lan la jàmtalu ca moom jàmtaloo ca man noonu danoo jortu loola rek xëy na daal xëy na wirdu woowu nga xam ne mooy wirdu sazilia ma ngi ko jële woon ca ustaas baaba bàyyi na wax jooja ikaayatun li ab nettali la sarifun bu doy waar axbarani xabaar na ma kaadi kaat ginnaaw ba mu bàyyee ustaas baaba ba ñëw jébbalu ci sëriñ Tuubaa nettali na ma man sëriñ Mamadou Lamine Diop Dagana ne ma bi anna seyxa ahmada naka sëriñ Tuuba lama wasala ba mu àggee yow ma ziyaaratihi ca bis ba mu doon siyaare li ustaasi ñeel ustaas ba fi nahaari ci digg bëccëg la fa yëg si yow mi ifi bis boo xam ne daa mbóoyo masaxallohoo sëriñ bi daal koy njaral moom sëriñ boobu nga xam ne mooy ustaas ba muy ustaas baaba daldi koy njaral labanan am soow jayidan njar mu neex bi ma in ci ndox moo xam ne baaritin ndox mu sedd guy la wa sukarin mu def ca suukar wa kaana te nekkoon na asa moom mii fi zamani tati yéexi moom Sëriñ Tuubaa mi ngi nekkoon ci jamono xam ne day xatal bakkanam ba du lekk lu neex te soow mi bakkane mu nekkoon ci xatal goog da koy xatal bakkanam ba lépp lu neex du ko lekk ci jamono boobu nag la ko njaral loole a sayxu sëriñ bi moom sëriñ Tuubaa booba mi ngi xatal àla nafsi yi bakkanam fa qaala lahu israb ustaas bi jël ne ko am naanal yow sëriñ Tuubaa fa qaala maa kuntu asraba sëriñ Tuubaa ne ko nekkuma ko damay naan soow moomu maa kuntu asrabu duma naan misla haza lu deme ni lool yi duma ko naan ndax daa neex bam mu ëpp fa qaala ustaas ba ne ko walima ngir lan a ayadro ko ndax dalay lor fi jaati tiibi ci wàllu wérgu yaram maanaam ci sa wàllu wérgu yaram ak faj ndax loolu dalay lor boo ko naane am taraktahoo wala da nga koo bàyyi rek lillahi ngir yàlla oustaz loolu sëñ mu jaay da nga koo bàyyi ngir yàlla di jiyee rek sa bakkan rek ndax looloo tax sëñ Tuuba ne ko waaw dama ko bàyyi li jiyee rek li nafsika ngir saa saa may jiyaat ak moom oustaz baaba ne ko da nga ko bàyyi mujahidan ngir ngir ngay jiyaar li naf si ngir sa bopp fa xaala sëñ tubaa ne ko naxam waaw waaw dama bëgg di sonal sama bakkan moo tax taraktuhoo ma bàyyi ko lillahi ngir yàlla fa xaala israb oustaz ba ne kon nag naanal isan kon njem loolu la naanal walam yasal bihi dañul naan ko naanal di ko ganale naan ko euh, di ko ca naan ko naanal bii soow ma atta ba ba sëñ Tuubaa mujj ker sa jàpp ko mu naan ca wa ba de loolu nag wa ba de saalika ginnaaw loolu nag sa ala mu laaj al asaabul ustaasi dongoy ustaas ba maanaam taalibey ustaas ba ne ko yow lu tax nga am gan an sababi ikrahihi lu tax nga am gan bëggul lii nga di ko ci gaa di ko ci forcé ba mu naan ko lu tax nga def loolu as seyxi muy sëriñ tubaa moom nga di ko ci ga allah surbi ci mu naan soow mi nga xam ne bëgg koo naan te wa maakaana yafalu bëggul moom nekkul koo xam ne day naan soow moom xaala ustaas ba tontu dongoom ya ne leen li annahu naka moom laa yuridu bëggul ilaa muxallafati nafsi yi bëggul lu dul wuuteeg bakkanam loolee mu bëgg mu bañ naan soow ma daa bëgg mu métti ca bakkan ba way iya mu yen bakkan ba lu diis fillaay ngir sàkkoo ca ngërëmal yàlla ata saarat daa mujj nag bakkan ba tilka loolee mu ko yenoon aadatuha bakkan ba mujj tàmm ko ba miin ko saalika loolee waaw loolee nag bakkan ba mu tere ga muy tere boppam soow mu neex moomee dem na ba bakkan ba tàmm ko falam ara gisul say an dara asada lu gën a tar ali ci loole min xarxil aada ci mu xotti baax loolee mu tere bakkanam ba bakkan miin ko nga ñëw def loo ko ko loolu tamit day mitti ca bakkan ba mittit woowee muy mittiwaat ca bakkan ba muy naan soow mu neex ma moom tamit laa ci jublu muy mittilaat bakkan ba te loolu lépp day jurak si lii nag lillaay ngir yàlla fahaa maltuhoo moo tax ma jëfloo ko loolee biyaa ca moom kiin waaye yu baariku yal na barke loo ñeel ko fiyaa ca loola fa innoo naka loole nag yasiru mujj na baxadu axwaa baxadu ginnaaw loole nag aqawaa sëriñ ba day gën a dëgër rek ci yàlla ndax loolee mu ko def loolu lépp lu jëm ca yàlla la luy diisal bakkanam la luy sonal bakkanam la te ginnaaw loolu tamit sëriñ bi ak dëgëram ca yàlla day gën a dëgër day gën a kowe ak cëram ca yàlla day gën a foor mi maa kaana bokk na ci xam ne nekk na aw kalaaman wala wax yu demee noonu aw kalaaman nahuha wala wax yu demee noonu rek la ca la ca tontu haza nahu haza hëbëda haza nag bi ñu dem ba jamono yu bari romb ata mu dikk ahmadu ibnu ustaasi baaba ku ñu wooye ahmadu di doomu ustaas baaba nag moom tamit mu ñëw gane si sëñ tubaa illaa seyxi mu ñëw nag gane si sëñ tubaa nag ahmadu fi njaareem fekk si ko ci njaareem gane si ko moom moomee bàyyam naan loo woon sëñ Tuubaa soow ma moom nag doomam doomi kookee naan loo sëñ tubaa soow ma toll ci jamono yi sëñ tubaa toll woon moom tamit di ku ragal yàlla di bañ a lekk yu neex yaak ataaye moom nag mu ñëw gën a siwaat sëñ Tuubaa mbir mi nag foofu la xoromoo ci wax jii deng ngay mës a dégg ku wax ba ne sëñ Tuubaa ree na fu dul foofu doo dégg mu mukk ñu ne sëñ Tuubaa ree na waaye fii moom di nga fa dégg ñu ne sëñ Tuubaa ree na mu ne ba mu ñëwee gane moom moomee bàyyam naan la woon sooma ma sëñ moom nag doom ja toll ci jamono yooye doon ko ragal yàlla di sonal bakkanam di bañ a lekk yu neex yi daal di ñëw na gane sëñ tubaa ci njaareem waa fariha bii sëñ Tuubaa bég ca lool a sayxu sëñ ba mu bég ca gan googe xaayatan mu jéggi dayoo sax la ca bég moom sëñ tubaa bi mu gisee doomu ustaas bi wasaraha mu tàmbali yu baalixu di ko jotale fi ikraamihi ca tarangaam yam koy teral di ko daam tàmbali di ko ganale it itxaaman ci aw ñam wa isqaan ak ak yu ñuy naan mel ni soowak ak yu demee noona falama wasala ba mu eggee fil as filas ribati ca la ñuy naan muy ataay jaag soow yaag bisaab yaag njar yaag yu demee noonu ila ataaya ba ñëwee ba ca ataaya nag alima ñu xam ne nag kaadi mii nag nga xam ne moo fekke woon lay fekkeli xam ne nag an sa dina am loxew tey am run mbir ndax li an ahmada mii gane sëñ Tuuba la yasra bu du naan attaaya attaaya tayit wala yoqdiru du attan an yam naxa mu bañ attaaya ji ko sëñ bi nar a jox am yam naxa sayxa waaw du dina sëñ bi ba attaaya ji ko sëñ nar a jox faaw dina am kersa ci sëñ bi ba faaw mu naan ko kon mbir na na am tey du ko mën a bañal sëriñ bi mu ne li haybati ngir wegeel gu am ci sëñ Tuubaa moo tax bu ko nee naanal ataaya ji faaw mu naan ko te xam naa ne moom du naan ataaya wala aqil jamaahati ak dina rus mbooloo mi tamit sëñ Tuubaa talal ko kaas muy gàntu falama hëmma ba sëriñ Tuubaa jëleb kaas jubale ko a say xob sëriñam naar boobu ko gane si bi ma di kaasi ngir tàllal ko kaas ba li ahmada jëme ko ci say Seex Ahmadu moomu xaala Ahmadu ne sëriñ Tuubaa xaala lahoo kaat xaala lahoo kaat kaat ne sëriñ Tuuba inna ahmada naka ahmadi mii ngay jox kaas bi maakaane nekkut yasrubu di naan ataaya ataaya fa xaala lahoo sayxu sëriñ Tuuba ne ko moom moom ahmadu yaa ahmadu maa baalu ko ana luy sa mbir ayadruka ndax ataaya ji lay lor min jiyaati tiib ci wàllu sa wérgu yaram ci mbirum am pàcc da lay lor am tarak taxoo wala da nga koo bàyyi rek lillaay ngir yàlla mu jaay dan ngir jiyaar goog danga koy def li nafsika ñeel sa bakkan nga di ko teg yu métti loolu nga ci jublu wala laf lay lor ci wàllu wérgu yaram fa xaala ahmadu ahmadu tontu sëñ Tuubaa ne ko na dama ko bàyyi waaw waaw taraktuhoo dama koo bàyyi rek lillaay ngir yàlla waaye duma wàññi dara fa xaalaloo sëriñ bi ne ko israb kon naana maanaam moom mu di bañ ataay ji woy juram daa forcé loon sëñ tubaa ca sowam léegi nag sëñ tubaa ñëw nag di ko forcé waat moom tamit ci ataay ji sëñ tubaa ne ko naanal israb kon naanal isan dong isan kon naanal falama falama sariba ba nga xamee ne nag ahmadu naan na moo tax mu ne falama sariba ahmadu ba ahmadu naane ataay nag aa seyxu sëriñ Tuubaa daal di ree fii nga mas a waa nga dégg fu ñuy waxtaan ba ne sëriñ Tuubaa ree na ba mu naanee ataay ji nag ngir li ko ko sëriñ Tuubaa ga mu daal di sëriñ Tuubaa nag daal di ree ca loola waxaala daal di koy wax ne asi i lii ma la def tilka mooy wecci la ma sa papa defoon la ma sa baay defoon sa baay mas naa faa ñëw mu njaral moom soow te man booba damay bañ lekk lu neex di ca wut ngërëmal yàlla mu forcé ma ba ma def ko tey nag yow tamit doo naan attaaya ndax da ngay not sa bakkan ngir di ca wut ngërëmal yàlla man tamit forcé naa la ñaari forcé yooyu yëpp nag dañuy boole jural ngërëmal yàlla rek ndax li nga tàmm boo ko boo ko boo ko tàmmee dootul métti ci yow bu muñ la ko defloo nag forcé la ci def nga day métti ci yow méttit woowee tamit da jural ngërëmal yàlla waaw fa inna walidaka naka sa way jur wa kat fa xale bii defoon na loolu ci man ma lii nga xam ne fa altu bi def naa la ko baarakallaahu yala nu yàlla borge barkeel yow it baarakallaahu làkka yàlla na la yàlla barkeel fiyaa ci moom loolu mooy li nga xam ne mooy fi nga mas a dégg fu ñu sëñ Touba reena ci jaar jaari sëriñ Touba